dem naan organiser ay conférence bi ma banque islamique développement yónnee pour ma assister ma représenter que à la conférence de 1989 organisée par les Moustachidines et les Moustachidates bi may def sama conférence Ibadan dafa ne may leen ma ma président ko ndax mën naa seede si moom du nga xam ne yéen ñëpp kenn mënu ko seede si donc man loolu laa am si moom euh, relation intellectuelle complicité intellectuelle daf ma may benn livre qui s'appelle la révolution de 1914 ma leen di ñaan yéen ñëpp na ngeen ko jënd. mu ñëw fekk ma assemblée nationale nous étions tous les deux députés fi ma toog mun ma livre bii laa jël na nga ko lire mu dédicacé ma ko ma dem à Washington sam benn xarit euh, bu nekk euh, Georgetown University Catherine Marshall mu gis ko rek dof si ni ma kii du dellu Sénégal bi mu dee bi ma ñëwee nag temps yi rek y a mois ma yabal fay bi Ibrahima fay bi ma woo ko mu daj si Ibrahima ma ne ko waxal ma grand bi ne que livre bi ma joxoon euh, am na ko ko nangu si man mun man dinaa ko joxaat beneen xam nga lan la bind si dédicace bi dafa ni mon marabout mon leader mon collègue à l'Assemblée nationale kon nag am na nañu yaakaar yal na yàlla def mu boot loxoom ni ko yàlla digle si alquran wujuhun yawma izin naa'ima li saayha raadiya fi jannatin aaliya laa tusmau fiha laagiya fiha aynun jaariya fiha sururun marfuuca wa akwaabun mawduuca wa namaariqu masuufa yal na ko yàlla defal yaakaar boobu yàlla bu mu tas bëgg nag mu nekk un exemple pour l'ensemble de l'élite du Sénégal il y a l'élite prédatrice qui depuis l'indépendance trahit la cause de ce peuple là il a toujours été fidèle Il a très vite compris ce dont le peuple avait besoin. Et il a campé sur un aspect important de ce dont le peuple a besoin pour son développement, mooy lan mooy le développement du capital humain. Toute sa vie, il l'a consacré au développement du capital humain. ñu am nag lu nga xam ni daf nu naqari rek mais yàlla lu ko neex mu def fa'aalun limaa yurid waaw fa'aalun limaa yurid yàlla bi muy bind Iba Der tàgguwunu kon nag yëfam la jël si. yàlla dafa nekk buur nekk borom waaye borom la gën nekk buur li ñuy naqari nag mooy que li mu sumboon mooy l'histoire générale du Sénégal et moi je ne connais pas au Sénégal une autre personne capable de mener ce bateau euh, jusqu'au port c'était Iba yàlla nag lu nekk mën na ko jël na Iba Der yóbbu na yan nag si wutal ko nga xam ni kii mën na continuer euh, ba euh, terminer li nga xam ni nii su mun na li koy ñaanal rek yàlla gàttanu ko euh, si àjjana euh, jox ko lépp lu nga xam ne liggéey na ko fii mu fay ko jongo manga ak mboolem lu Kaffrine mbokk nga ci professeur Iba Der Thiam moo xam waa gisam la moo xam waa Kaffrine la ñëpp ko xam xam ko ba xam Iba Der bu mag mi ko tuddee bu daan ñëw Kaffrine mu ngi daan nekk ci kër sërëm bu ñuy ajaa Adja Fat Jong Iba Der Thiam sama moo ko magee woon ñaari at waaye ay xarit lañ woon ay maas lañ woon ba bu ñu ñëwaan Kaffrine ñoom ñoo doon bokk di jotaay euh, bi ñu ko bi mu juddoo Kaffrine 1937 ba tey jii nga xam ne ci lañ koy noppi gis physiquement li nit ñëpp mën a seede mooy nit ku am pas-pas la woon nit ku am ngëm la woon nit ku gëm Sénégal gëm Afrique ku gëm yàlla gëm Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mais ku gëm xam-xam la woon ah li mu liggéey ci Sénégal nag kenn mënu ko wax ci jotaayu gàtt yu mel nii li ma xam daal mooy ay imam ci Kaffrine ay sëriñ daara ci Kaffrine seedal nañ ma ne le diirub mu nekk député à l'Assemblée nationale weer wu nekk daf leen daan séddale salaire ba wut leneen teg ca jox leen nit la koo xam ne nii bëri woon na lu mu daan woor mënu ma wax ne bëri mu daan woor waaye xam naa ne li daan woor ci semaine bi moo daanul woor euh, fii ñi koy julli nii itam Liberté 4 gi bokk naa fi ak moom ay yoon yoon di fi julli juma ñaare suko ko yàlla defaat mu nekk Sénégal te amul ngant fii la daan julli si jumaa loolu moo tax sax d'ailleurs ci oyofaayam ak ci euh, ragal suñu boromam ak euh, am yërmande ci doomu aadama yi mu tegtaloon ay xaritam ak ay mbokkam ne bu génnee àdduna nañ ko gaawee te nañ ko def de la manière la plus sobre la plus simple loolu moo tax ñu defee ko fii euh, ñi ngi koy jaale nag mboolem borom xam-xam yi ci àdduna bi waaw ndax du xam-xamu ñi jàng nasaraan rek waaye képp am xam-xam muy arabisant muy francophone euh, sañ nañ la jaale professeur Iba Der Thiam instituteur adjoint la tàmbalee nekk professeur agrégé de renommée mondiale loolu exemple la amoon utilité sociale la woon ba doon liggéey ci wàllu syndicalisme foofu itam lettre noblesse sam am na ko ci wàllu politique nekk na candidat à la président de nekk na ministre plusieurs fois de la République nekk na député à l'Assemblée nationale foofu foo ci fànn foofu tam mën nañu wax ne il a eu une vie remplie tey nag bu mu tëddee bàyyi na fi jikko ak melokaan yu rafet yu ñu mën a fàttaliku bàyyi na fi ay kàggu ay téere yu bari yu mu bind waaye bàyyi na fi diggante yu rafet yu jag yoo xam ne nii dëgg-dëgg yàlla moo ko jagal ma wax leen ne jamonoy Senghor bokkoon ci PS mais jamonoy Abdou juuf ànd naag Abdou Diouf xëccoo waaye ànd naag Abdou Diouf liggéey ci jamonoom gannaaw bu état général de l'éducation amee ci la ñu sos la journée du parrain di tuddee daara ak yenn béréb yi kilifa yi dëkk bi doomi réew mi lu weesu loolu am man xam naa ci lu leer na Abdou Diouf a ngi ci Sénégal mu ngi dund daan na jaarale ci moom ak Ousmane Tanor ak ñu mel noonu daan dox diggante régime PS ak opposition bi à l'époque bi Abdou daanoo moom mu bokk bokkoon ci ñi àndoon ak Ablaye Wade jëlee fi Abdou Diouf liggéey nag Ablaye Wade ba fi ñu toll ni tey kenn mosul foog ne kenn mosul xam ne ab Ablaye Wade ak Iba Der am am nañu xarma yàlla fii mu génn àdduna nii umpul nañu bëri waaye leer nañu bëree bëri ne président Macky Sall ku doon nemmeeku Iba Der Thiam la ku doon taxaw la y compris ci jàmm ci tawatam bii ba tey kon ku ko jaale président Macky Sall jaale nga ko toute la classe politique amul benn u politique ñu ngi koy jaale nag singulièrement soxnaam ak njabootam ay àndandoom ay xaritam ñi mos a nekk ay assistant am yëpp mais également di ko jaale chauffeur mi ak ñi nga xam ne doon liggéeyal parce que nag Iba Der Thiam Iba Derum Sénégal yëpp la mënuñu lu dul heure bi ñu toll ñaan yàlla mu boole ko ci ñi muy def mu ñu nekk perspective parce que ci fànn yu bëri Iba Der Thiam était en avance sur son temps il était un visionnaire mënuñu daaneel te jaale wuñ ko professeur euh, président Amadou Mahtar Mbow ñu am lu ñu sëq am lu ñu digaale dëgg dëgg yàlla daal njaal moo ñu dese te ñaan yàlla mu boole ñu ci yi nga xam ne ni dinañu mérité de Iba Der Thiam di ko offrir en exemple non seulement à la jeunesse sénégalaise ay africaine mais à la classe politique actuelle à nos aînés actuels parce que c'était un exemple type de, de militants de la cause nationale, de la cause africaine. C'était un croyant qui était d'une générosité incommensurable. Et en tant qu'intellectuel, il était ouvert et tolérant. Il pouvait accepter que quelqu'un, fût-il le plus, le, le, plus impertinent, tente de le contredire, se confronte à lui, mais il respecte quoi. Je rêve d'un de de d'un acte politique ou d'un acte de gouvernance boo xam ne day day day màggal Iba Der Thiam li Amadou Hampâté Bâ doon wax ci moom mi mën nañu ko wax nee nañu dana wax naan en Afrique lorsqu'un vieillard meurt c'est toute une bibliothèque qui brûle en Iba Der Thiam nous un de ceux qui ont le plus remarquablement contribué à façonner le destin politique économique social de ce pays et nous ne pouvons que en le pleurant souhaiter euh, que Dieu en fasse une perspective pour les générations actuelles et futures, mais surtout nous-mêmes, nous engager, nous évertuer à mériter de lui. En ma qualité de maire de Caprine, oui, en ma qualité de député à l'Assemblée nationale, et surtout en ma qualité de porte-parole du Parti socialiste, Madame la Présidente Aminata Mbengue m'a chargé, puisqu'elle ne peut pas venir ici à la mosquée, de, de transmettre ce message de condoléances du Parti socialiste. C'est le Sénégal avéré. dama wax rek ne tànk yi ma fi mën a indi bari na Iba Der sama xaritu rakku papa la woon ñuy wax ko El Mas Thiam ma xamoon seen diggante tànk yooyu mën na ma fee indi ah, ci taxawaayu homme politique am tànk boobu aussi mën na ma fee indi ndaxte ñu ngi bokkoon langue politique yi ci taxawaayu syndicaliste bi mu doonoon tamit ak taxawaayu jullit àqam bi nga xam ne ñëpp xam nañ ko ci moom mu doon ko waaye tamit Iba Der moo ma jiitu ci ministère éducation nationale def fa liggéey bu rëy boo xam ne bii taarixu Sénégal def ko jàpp kon te bi ma nekkee ministre éducation nationale cérémonie distribution concours général bi mujj bi ma ma bi ma fekkee en tant que ministre président Macky Sall moom la tànnoon mu nekk parrain parrain nag dafa nekk dañ ko defoon kon rayukaay pour élèves yi def ko rayukaay pour jàngalekat yi donc looloo tax ma teew fi tey pour jaale famille am yëpp bokk naxar bi ak ñoom wan nañ leen ñu ngi taxaw ci seen wet euh, di ñaan yàlla mu jéggal ko ay rëq-rëqam yàlla xare ko àjjana yàlla euh, uutu ko ci njabootam euh, fi mu féete woon njabootam yëpp yàlla féete leen fa ñoom tamit fi ñu ko féete woon yàlla féete ko fa waaw ndaxte moom euh, euh, borom xam-xam bu mag la woon boo xam ne bi àddina yëpp ko na woon euh, mu nekk ci mbirum histoire mu def ci liggéey bu am solo fii ci Sénégal liggéey bi nga xam ne moom la fi mujjee sumb mooy bind taarixu Sénégal mooy histoire Sénégal boo ko amee borom xam-xam te defe naa ne loolu ñu doon liggéeyal dañu nekk di ko continuer tuuti bu fekkee njàng rek moo taxoon nga jóg tiitar la woon ci wàllu kuma euh, bi ma yëgee xibaar bi li ma njëkk a xalaat mooy relation yi nga xam ne ay maamam yu góor amoon nañ ko ak sama maam yu góor ndax ñun ñi nga xam ne dañuy dëppee Kaffrine ñuy ndaw kundaay yi ngayeen yi bu ñuy installé ba googu ñu dëkk pays ba fa mu ne maamu Iba Der maam Bagal ay toolam la moom moo ko may sa maam Bala Ibrahima Ndaw kon relation dafa yàgg yàlla def ñuy màgg di màgg ba dugg ci politique ñu ànd ak lay Wade mu am partem mais toute modestie à part bokk naa si ñi nga xam ne ñoo convaincre président Blade mu dem seeti Iba Der Thiam fii këram boobu ñu ngi waajal élection 2000 rien que pour que ñu mën a ànd pour mën a jàkkaarloo ak pouvoir bi fi nekkoon pour alternance mën a am bi mu amee it gis naa taxawaayam ci wetu président Abdoulaye Wade di coordonné parti yi nga xam ne ñëpp dañu àndoon ak président di ko jàppale te mu def ko ak abnégation dévouement à la euh, gisoon nañ ci moom koo xam ne nii li ko ñoroon mooy Sénégal ndax wane na ko ci njàngam instituteur la njëkkee bu ko kenn fàtte def na Sénégal Bambey Lambaye Bignona ba ba muy nekk agrégé nekk docteur d'état ñëpp ràññeeku ci xam-xamam bu sell ci wàllu histoire mu dem bay bind lu téere pour histoire générale du Sénégal bi mu participer ci élaborer histoire général de l'Afrique ak ñoom professeur Kizerbo kon ci wàllam kenn la ci man gisuma Sénégal ci ñi nga xam ne dañ seen xam-xam màcc jëm ci histoire ku ci raw Iba Der mais du loolu rek dañ ko war a seedeel lu bari nitu jullit axan la Iba Der tous les jours da doon woor man mun naa ko seede bis bu nekk dafay woor Iba julli du ko far fu ko julli heure julli fekk mu bàyyi la mu doon def pour jàpp julli buy réunion ministérielle wóor na ma ne yoon yoon génn na conseil de ministres dem di julli ji parce que yoon dab na ko ku mel noonu bu génnee àddina seedeel ko lim fi nekke woon ci lu baax engagement am pour le pays te da ko jaral lu nekk nag maa ngi fàttaliku bu nekk assemblée nationale règlement bu bees bii nga xam ne moom la nit ñuy liggéeyee man ak moom ñu ko tabax te moom mu jiite woon commission bi nga xam ne moo ko doon élaboré yemu ca professeur Iba Der Thiam juboon na jub goo xam ne contrairement à beaucoup doom politiques su ko assemblée yoon naan mission su demee ba ñëw bu fekkee ne frais de mission yi dañ ne koon am nga fa quinze jours su fa defee 12 jours walla 11 jours su ñibbisee dafay dem questure jël xaalis bi delloo ko def ko rapport ne lii laa dépensé lii dépensé wu ma ko. loolu yombul ci homme politique yombul ci sénégalais kon ku jub woon aussi lislaam ndax bëgg na ko wala bëgg ko këru diine Sénégal yi koo fi wër lu nekk def na ko fa rawatina xam na leen parce que jàng na ñi nga xam ne ñoo jiite diine bi mais li gën a yéeme mooy ndukumaan ngay ñu dëkk ñun amul benn kërul diine booy dugg te duñ la magnifier Iba Der Thiam man am naa ko cant bu rëy jant boo xam ne euh, man maa ko xam fi ma koy tibbee mais Sénégal il faut que ma wax leen ci tuuti 2001 bu kenn fàtte ni ci laa njëkk am mandat parlementaire mais gëm naa ne su fekkoon ne Iba Der jëlul matuwaayam ñëw ànd ak man jàppale ma dugg ci kër yoo xam ne wóoroon na ma ne sama tànk mënu fa dem ndax ay kili kilifa jël alalam séddale ko recevoir nit ñi di waxtaan ak ñoom. ba yàlla may ñu ndam ndaw boo xam ne dafa nekkoon surprise ci Sénégal loolu c'est l'œuvre d'Iba Der Thiam c'est important que je le rappelle ici parce que nit aussi euh, ku dee da ngay fekki sa bàmmeel yow kese yaa fay nekk te yàlla dina la laaj lan nga nekke woon kon li ñu war a def mooy roy ci moom ci góor góorgóorlu persévérance ndax ku jàngoon instituteur ba mujj nekk nga nekk professeur agrégé ba ñëpp ràññee la sa xam-xam ci wàll wi nga xam ne moom nga jàng loolu di ko roy mais aussi war nañ taataan roy patriotisme bu ngeen ko seetloo Iba Der à part xeex bi nga xam ne xeex na ko contre Senghor fii ci wàllu politique ak syndical président i fi nekk ñëpp kenn ku nekk am na la njëriñ muy président Abdou Diouf nekk na gouvernement am président Ablaye Wade accompagné na ko plusieurs fois convoqué na ko pour def ko ministre d'État dafa bañ xam naa ci dara président Macky Sall bi mu jotee nguur gi waxul ne man de dama nekkoon ak président Macky Sall euh, Abdoulaye Wade jeexal na damay toog déedéet mission bi ko dese woon ci àddina heureusement yàlla dimbali na ko ak ouverture président Macky Sall ba ñu mën a bind l'histoire générale du Sénégal loolu itam dafa bokk ci curriculum bu Iba Der Thiam boo xam ne exception la ndax nag réew mi dañu yaakaar ne Sénégal dafa war a nekk ay pàcc ñii dañu war a far boor bi ñii dañu war a far boor bee ñuy xëccëw moom syncrétisme loon ci loolu synthèse la woon des divergences donc loolu bis tey day baax ñu seede ko magnifier ko ba pare wax askanu Sénégal ñu rendre ko hommage c'est dommage que dañuy xaar ba nit ñi jógee fi ñu door leen defal ay hommage ñi mel nii ba der waroon nañ bi mu nga xamee ne wàcc na ba nga xam ne nekkatul dara defatul nekkatul député ñu defal ko une journée nationale d'hommage parce que mérité woon na ko gëm naa ne am na ay yu mérité ay journée domage jàpp naa ne loolu moo war a nekk la la règle et non ñu xaar ba nit ki jógee fi ay mbokkam rek ñooy dégg lu baax li ñu koy wax or moom satisfaction morale bi mu am yóbbuwaale na ko c'est vrai mais ça aurait été plus intéressant que mu am ko fekk mu ngi dund kon daal ñu ngi ñaan yàlla mi nga xam ne yàlla dara tëwu ko mu xareel ko aljana parce que ñun ñëpp dañ koy fekki ëllëg mais na ko atte ci yërmandeem pour dugal ko firdawsi bi nga xam ne ñëpp moom la ñuy waat euh, kaddu yu daal laa doon yëkkati ci turu bépp doomu kafrin di ko yëkkati ci trou bépp homme politique sénégalais yi nga xam ne ak ñun ak moom bokkoon nañ collaboration di koy yëkkati ci universitaires yi nga xam ne ñu ngi def euh, département d'histoire parce que ñu bëri xamuñ ne ma nekkoon naa département d'histoire boobu Iba Der mu nga fa professeur Bathily mu nga fa woon kon leer na ne sama professeur la woon bi mu nekkee sama oncle ba pare jëf waaw professeur Iba Der Thiam moom la ñu ñëw tey di ko gungee ci këram gu mujj. du koo xam ne dañu koy wax kan dañu koy présenté Sénégalais yi ndax ñëpp xam nañ jaar jaaram ci wàllu xam ci wàllu jàngale ak ci wàllu politique mu nekkoon nit ku mat nit koo xam ne bind na xam-xam bàyyi fi ñu koy jëriñoo dana koy ñaanal sunu borom teelu teeru ko àjjana ak njëgal euh, te ñu yàgg fiit ñu ko ñaanal donc ñu ngi jaale njabootam di jaale sénégalais yi ndaxte ki ñu ñàkk du ko ndaw euh, ku ñëpp ràññee woon la ku amoon njëriñ la ku jullite woon la ku jub la woon yàlla na ko yàlla waa liggéey na fi nag liggéey boo xam ne yàlla moo ko may loolu lay wax bàyyi na fi xam-xam ndaxte bu yàlla maye nga jiite histoire écriture histoire générale du Sénégal bokk ci comité scientifique bu histoire bu Afrique amel nañ ko njukkal goo xam ni lay sunu diine lay sunu taarix lay sunu histoire lay sunu culture. waaw. asalaamaaleykum ati maa ngi leen di nuyu di leen sant di wax li ma xam ci El Hadj Iba Der Thiam muy nit ku baax rek ni ko ñëpp xamee rek nu bokk dëkkandoo fii ci quartier bi muy Liberté 4. nu bokk di julloondoo ci jumaa ji ci Liberté 4 fii nu ko jële tey mu defi mu defi def lu baax rek lu baax lañ ko xamal mu di ko def ci jumaa ji di ko def ci doomaada may yi ku daan def ci social ci gox bi la waaw loolu nag moom ndax moom lu muy defet kenn du ko xam xam naa ñu ko gën a jege rek koy xam ñun daal leen xanaa xam ci wuro daal mooy daal jullit la ñooy bokk jumaa ji di julleen doo waxtu juróom yëpp mu di ci def lu baax na bu génnee ñëpp lay defal lu baax néew yu doole fa ne yëpp ku ne dana tegoo moom loxo loolu daal lan xam ci moom ak wax lu baax di ko ñaanal yàlla nag fu mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jóge ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi leen di nuyu man la Mariam Soda Thiam. professeur Ibada Thiam suñu papa la suñu nijaay la. li ma xam ci moom de bari na waaye mbaax moo ci jiitu moom ku baax la ku bëgg nit la ku mun a defal nit la parce que sama bàjjen bii dëkk Kaolack mi ngi wax teraanga yi mu fay def yëpp nag ku baax la ku bëgg nit la ku julli ci tamit li ko maire bi waxee ndax ñëw naa fi benn ñaar fekk ko muy julli kon kooku mun nga ko seddee na jullit la maa ngi koy ñaanal yal na ko yàlla xare àjjana fa mu jëm yàlla na gën fii mu jógee yàlla na ko malaaka yéen maa ndee teeru ñun ñëpp ñu koy jooy senegaal yëpp a koy jooy. li ma si xam daal mooy xam ne daal ku am ku am la et laa a beaucoup servi aussi pour son pays liggéeyal na réewam liggéeyal na l'islam te boo déggee témoignage yi ñu def fii si si jumaa ji bi ñu koy jullee nga xam ne vraiment du loo xam ne lii lu ñu tànd la daf ko liggéey bon di ñaan yàlla rek. yàlla yërëm ko te jéggal ko ay ñaawteefam képp kum fa fekk ak fa fekk yàlla boole leen jéggal ci barke yonent bu tedd bi. lan nga ci moom. man nag man bon xam nga moom moom léppam la parce que déjà boo nekkee Sénégal rek di ko di kii xam nga ne bon.